amaat euh, euh, du côté de l'opposition ñoom dañoo jàpp ne c'est de l'intimidation le parquet nee na euh, dafa tijji une enquête criminelle et ces médecins sont détenus parce que dañuy def obstruction euh, à la à la à la à, l'enquête policière alors est-ce qu'au nom d'une enquête criminelle est-ce que mën nañu Euh, détenir un médecin et exiger de lui euh, que mu euh, joxe des éléments des éléments d'information concernant un patient soit-il Ousmane Sonko. merci Maimouna ci laaj bi am na solo je vais commencer du principe selon lequel ñun ñëpp ay justiciable lañ képp ku justice soxla da ngay ooy justiciable bu justice kenn tuddutul neen justiciable nga tudd. fût-il un médecin un leader politique euh, ou un syndicaliste wala keneen ku mën nekk c'est que aussi il y a aussi une autre chose on ne peut pas se prévaloir d'un texte ou d'un règlement intérieur pour di ko teg ci kaw texte national parce que règlement intérieur bu euh, bu médecin sa régit l'organisation et le fonctionnement et la discipline des médecins ñoom la engagé man mi nga xam du médecin man engagé wu ma seen règlement intérieur bu ordre des médecins la engagé képp kuy médecin tout comme code de la presse bi ñiy liggéey ci wàllu presse la engagé man mi nekkul journaliste engagé wu boo demee ci avocat yi ñiy ci avocat yi ñoom la ordre des avocats bi Sénégal engage ku nekkul avocat engagé wu donc ordre yi lan lay firi ordre c'est juste c'est pour la protection des droits matériels pour protéger maanaam seen agent yi in soi c'est-à-dire dans l'exercice de leur amee ay problème mën leen taxawu le plan syndical la bon di nuyu de passage euh, le le le syndic ki jëli syndicat médecin yi mon ami docteur Ndour mais yoon daf ne boo demee ci article 363 du code pénal sénégalais toujours en vigueur daf ne sur le principe premier alinéa daf ne sur le principe mu cité ci cité pharmacien cité euh, comment dirais-je euh, les sages-femmes d'État ne ils n'ont pas le droit de divulguer leur secret seen médi secret médicaux yi nañ am amuñ droit divulgué ko ba yoon teg ci ne koo ci def ci tayef maanaam délibérément yoon dañ la daal lu ba juróom benn weer alamaan la xaalis bëri mu dem ca beneen alinéa bi ne attention ne cependant toujours disposition article 363 cent wax de mu ne cependant ku ne cependant mooy yaa ngi di contraire li nga bëggoon wax mu ne en cas de nécessité d' enquête ou en cas d' investigation ñëpp xam nañ ne mënoo jël un règlement intérieur di ko def ci code pénal code pénal ñun code pénal ñun ñëpp moo ñu tënk mais man règlement intérieur ordre des médecins man tënku ma képp kuy sénégalais même ku nekku Sénégal dugg ci réew mi soo defee infraction code pénal day daan sa kaw mais man ñu médecins yi doxalee seen biir doxalin man mi nekku médecin man sama yoon nekku si ñoom seen discipline ak seen doxalin ni médecin yi ni ñu koy doxal loolu lañu engagé mais bu amee en cas de seen règlement intérieur bi mënul nekk ci kaw code pénal

de de de est-ce que possibilité de garde à vue man nga nekk veille vérification d'identité taxawal 24 heures s'il y a maintenant des éléments probants concordants qui yoo xam ne indice yoo xam ne mën na pèse si yow ne li ñu lay njortes ne yaa ko def am na mën nañ jàpp ne mën nañ la nekk en position de garde à vue mais dama ne dès l'instant que ubbi nañ enquête rek poursuite commencé na fa la poursuite commencé ba ci juge d'instruction ba lépp poursuite nekkee procès mais dès l'instant que déclaration nañ enquête na léegi nag yoon daf ne en cas de poursuite ou de nécessité d'enquête ou en cas d'investigation ces informations tenues secrètes par un médecin ne lient pas le juge il n'est pas opposable au juge mu ñëwaat deuxième alinéa bi ne le même ces secrets là n'est pas opposable aux officiers de la police judiciaire léegi police judiciaire boobu kan mooy patron c'est le procureur li oppose police judiciaire waxuma laa kii patron loolu de loi bee ko wax procureur kan mooy patron ministre de la justice. ministre de la justice c'est le système judiciaire. mais loolu du problème. Ah, non non loolu laa doon non loolu du information. c'est normal non loolu non non loolu texte. information c'est pas euh, ça mais ça c'est un xam nga man parquet am doole man dérangé ma man parquet am parce que doole parquet wàññeeku mooy saay-saay day yokk day am fit kan mooy topp saay-saay parquet mooy topp saay-saay si. ak jublag ak jublag indépendance am tam baax na. non parquet parle de l'indépendance du juge. quand le parquet n'est pas indépendant la justice n'est pas indépendante. déedéet déedéet le ah, parquet c'est le ministère public de la justice. Euh, la justice c'est un package. c'est pas seulement la justice c'est pas seulement la justice c'est pas seulement le parquet. le parquet est une partie au procès. il n'est pas c'est des magistrats. waaw mais il n'est pas la justice. mais c'est pas le parquet kii sëñ bi nañu dégluwante rek. Euh, ay bàyyi ko mu terminer c' est ah. pas la partie qui dit le droit c' est la partie qui a le dernier mot dans dans un procès. mais il n'a mais il n'a demeure pas moo tax tey plus de ay trois cent personnes quatre cent personnes ils sont détenus. te juge d'instruction mënu ci dara. ils sont parce que dafa viser article quatre vingt. tout comme atteinte à la sûreté de l' état des délits. may ma yegg la des délits fourre-tout. ay may ko mu mu li ngay wax xam naa ko. parquet topp rek mooy liggéeyam parquet su ko neexee jël cinquante infractions gàcc ko nit. d'accord mooy affaire bi nag léegi suñu nee ba ci juge bi na fexe moom que bii poursuit kenn laaj ko preuve xam nga kenn lañ koy mm-hmm. comme ni pour disculper le client parquet bii poursuit il poursuit sur la base d'indice ou de comment dire euh, naa ne. ñaar ñaar ñoo ne diw am na mu topp la su demee ci juge d'instruction moo xam daf la ubbil information yi la seet ndax preuve la procureur la topp fii sëñ bi monsieur Daffy ñu dem devant la loi juge bi dóor relax nga dem si mais entre temps tu as fait deux ans trois ans de prison nga yaakaar ni loolu c'est normal mais c'est le système comme ça. ah non mais comme ça contre qui mais dama ne quand tu es au pouvoir tu n'es pas visé quand même disons. voilà c'est que bu ñu nekkee ci moom dañuy may interpeller quoi. non damay expliquer damay wax nga nga roof beneen bagal. te li ngay wax de mi ci code ko def lu ne ah. waaw d'accord. yàlla ñu bëgg ñu nit. droit mais quant wàññi doole parquet man d'accorduma ci parce que bu dooleen wàññeekoo caay caay saay gën a ñeme. am fi euh, deuxièmement de l'autre côté. moo wax la benn affaire xam nga man li ma d'accord nañ yokk les pouvoirs de la défense. créer un juge peut de la mise en liberté bu parquet ba doo ñu gaaw créer ce qu'on appelle des recours si le juge la liberté juge boobu gaaw ne parquet li mu toppee nit ki bàyyil ñu bàyyi la nga dem ñibbi mais encore je vous encore le secret de l'infraction le secret de, professionnel n'est pas tenu n'est pas opposable aux juges Merci. ni aux enquêteurs en cas de nécessité d'investigation lu jox la benn exemple Sonatel ngi nii kanaa Sonatel ñoom duñu ay les données personnelles. ñaata yoon nga gis police envoyé réquisition Sonatel na ko jox ma numéro identité téléphone kii fu mu jaar Sonatel da koy jox sans pipi moom xanaa Sonatel ñu doon ay professionnel ñaata nit aussi nga gis banque juge bind banque na ko indi ma relevé compte banque diw diw banque bi dajale yëpp dem jox juge bi sans trompette ni tambour pourquoi médecins yi ñoom ñu laaj leen ne pour des raisons d'enquête yoon ne leen ñoo la gën a xam article 363 ma la wax. le secret médical n'est pas opposable au juge en cas de nécessité d'enquête ou en cas de de de d'investigation ni aux enquêteurs